jërëjëf mbokk yi alhamdulilah et 4 wala ñu naan appui 4 TV suñu waxee 4 appui dafay jublu ci xel yi ci lu ñuy dem mooy lu jëm ci wàllu làmb làmb mooy suñu cosaan di suñu culture Sénégal moo waral ñu ci yëngu mu doon suñu sport waaye it boole ko football li xew Sénégal mooy barki démb yàlla dogal ñu jël kaan bi mooy coupe d'Afrique boo xam ni yàgg na lool ñu doon ci topp yàlla jox nañu ko alhamdulilah waaye kat appui tey da ngeen di gis ñuy faral di dugal lu jëm ci wàllu ay surtout làmb wàllu làmb rek moom la ñuy faral di waxtaanee ci wàllu sport komba bu am moo xam komba bu ndaw wala bu mag da ngeen gis ñu dugal mbër bi daan wala ki ñu daan wala ci actualité wala lu ci xew waaye nag quatre appuis bi li ci jublu mooy e, ci wàllu làmb et ba tey dañ ciy yëngu moo war ñu naan quatre appuis quatre appuis nag règlement la boo xam ni dafa xew CNG site bi tudd quatre app mais da ngeen di faral di gis ñu yëngu ci wàllu sport ci wàllu culture waaye ci beneen fànn dañuy dugal wàllu euh, actualité wàllu people wàllu actualité wàllu people wàllu li nga xam ni moom mooy xew ci wàllu société mais yàlla dogal na it ci wàllu société bi ba tey lii xew ci àdduna mooy lii xew suba ci gàttal diggante komba rëg-rëg ak guy yi alors rëg-rëg guy yi combat la boo xam ne mi ngi am suba mais dañu jàkkaarloog jëmm ju tedd ñu naan ko soxna bindu maam Seydina Limaamu Laay dugg nañ biir yoo fekk ko fi mu doon koo xam ne day yëngu ci lu jëm ci wàllu ñaan yàlla wàllu faj wàllu cosaan ak wàllum rab mais li ñu war waxtaan ak moom bari na parce que léegi nit day fen ñu continuer di ko tàllal ko naan ko del fen mooy li xewoon ci kaan bi alors liñ ko war a waxtaan ak moom bëri na ñu bàyyi la nga nuyoog ñu lay seetaan ci gàttal rek ñu soog a ñëw ci li nga xam ni mooy actualité. salaamaaleykum àddina. salaamaaleykum Sénégal. sant yàlla di julli ci yonente bi. gërëm maam li maamu alayhi salaatu wa salaam. Mhm. gërëm Sénégal ñëpp di nuyu ñëpp nag. Mhm. jaajëfal ñëpp. alors euh, dina ñëw ci kan bi dina ñëw ci combat bi dina ñëw ci wàllu actualité tëj émission bi mais ci gàttal rek ci lu ndaw euh, dugg nañu yoof ñu ngi kon xam na ni bu weer bi deewee incha allah ñu ngi dugg ci appel ku la xam-xam la ak Seydina Limamou Laye lan nga ñuy wax ak lan ngay wax taalibe yi. salaamaaleykum laaj nga ma lu ma sawar. lu ma neex lu ma yàkkamti. Mhm. ndax bàyyi laay moom mooy rasooru laay ndeysaan yonentab yàlla bi alayhi salaatu wasalaam ba ci fajar rek la may yee borom di doy tedday borom saal yu tedday bàyyi laay mooy muhammadu rasulullah mhm. ñu waajal appel bi nag mhm. taalibe yi yéen laay waxal yéen yoneen nga maam li la maam li maamu laay laay la laay yal nañ ci duggaa jàmm uh-huh. génn si alhamdulilah di dinañ ci duggaa jàmm génn si yaa ngi woo taalibe yaa ngi yëpp maa ngi oo ñëpp di oo taalibe maam li maamu uh-huh. di oo bitim réew uh-huh. waa senegal ñëpp waa Europe ñëpp maa ngi sant yàlla daal di gërëm ñëpp di oo nag taalibe yi julli ci yonent bi di julli si yonent bi mhm. di oowaat ñëpp di oo ñëpp ndax appel bi moom ñëpp a ko moom ñëpp a ko bokk ñëpp a ko yàkkam sax diggante Cambérène ak Yoof ak Ngejj ga diggante Cambérène mhm. Yoof mhm. ñu ngi oo ñëpp ñëppay ñëw sax ne ñoom ñëw leen ndeysaan jërëjëf eh, li nekk ci moom dafa bari li ñoo waxtaane moo tax ñu gàttal tuuti cest à bi ñuy ñëw moom mooy euh, alhamdulilah waaye waxoon nga ne suñuy tuddee vaar maanaam mënoo comprendre yéen ci wàllu ñaan yàlla suñu borom nit di fen ñu continuer di ko tàllal micro naan ko kaay nga fenaat ci ban côté mooy yéen ci wàllu cosaan ci ndono gi dañu xëy jël si la nan la la affaire bi dikkee ci lu gàtt rek par rapport ak ci say waajur parce que nag il faut ñu ñëw ci ñi nga xam ne dañuy wax ci loo xam ni doon wuñ ko ci dara lu may xëy rek toog ni dañuy ñaan tey maa ngi sant yàlla di gërëm Binta Thiaw Seck mhm. gërëm Binta Thiaw Seck yaayi baay mbay Fall mu jur Binta Sarr mi toog Binta Baye Seydi mhm. waa àddina bi nag moom wax ji dafa bari mbaw yi bari chaque jour ma wax lekk ka rek mhm. fen yi bari ndax lu waay manul bu ko jéem lu waay manul bu ko uti toogal ba mu ganase la man lii dama si judd ñu mandil ma si nàndal ma ci ma si nàndalee samay maam sol ma arab dëggal ka rabama sol man man jinnee dina ju riis dina ju gëm yàlla ju gëm bàyyi laay moo ma jox li ma yor. la nag bari na lool ku nekk naan mën a ku ne naan mën a chaque jour ma wax la ko fii. d'accord boo ñëwee mën a wax ji na coow li bari na fen yi bari na. danañ ci ñëw ci fen yi léegi nag ci beneen kàrte ci gàttal lan moo indi ñeenti ndëpp yi. ñeenti ndëpp yi. ki jur sama bàyyi ma daan yónni soow. di ma rootloo ay ndaawam at ma mu génn àddina ñeent fukki guddeem la ma rab dugga man ñeent fukki guddi sama maam la ma rab dugga cosaan dugga ma dénk ma xam-xam bi xam-xam bi fu wér laa ko teg illaaha si ma jox tani may pettaaw de pettaaw ban ma naree sànk yàlla suñu borom nangu tani ji maam Seydi gas ma tani ji mm. ma gas ba mu xóot suul pettaaw kenn sutu ma si xoolute gerte dama si daan seet sama maam Seydina Isaa ma ko tere ma bàyyi ka laa ilaaha joxaat ma ndox jox ma suuf ma di si faj di dimbali doomi aadama yi te yàlla tax. d'accord def dama man ndeysaan li may def dama ko man mais ci gàttal léegi nag su ngeen toogee yéen. ginnaaw nee nga mbir mi bi lay dugg for nañ ci wow bee sax da nga daan balay bale naa xamba ba ñaata at. fukki at ak benn ñu naan 11 ans. la di dugg ci biir xamb yi. dugg ci biir xamba yi booba xale boo yónnee mu bañ man rek la sama maam óolu aji Binta Thiaw Seck man rek la óolu woon si sëtam yëpp. maay bale maay root maay jëndim soow te doo wax doo geestu booy dëbba doo tàccu laa ilaha illallah kon su ngeen toogee tey gis ni maanaam yëkkatil ma micro bi su ngeen toogee tey gis ni tey léegi ci ginnaaw li nga wax ni yaa doon balay xam yëf yi dugg na la ñu ndëppal la ñeenti yoon ci wàllum rap léegi ngeen toog gis léegi ci wàllu actualité soit lu jëm ci équipe nationale bi ngeen toog léegi gis xale yi maanaam dañuy profité di wax ci actualité di wax te leer na leen wax dara du ci dëgg nga ni rap soo deful nànk dalay weer moo waral ñuy fen ñëpp mu weer leen. rab moom day weer da weer ba nga weeru. ndax. Mhm. li ngay mbaw. Mhm. te dara du si dëgg boo paree rab ba dina la weer borom tunde yi xam nga rab du dëkk ci ay kër. Mhm. ci tunde rek lay dëkk ci àll yi. bu doxantoo géej ba mu neex ka demu yoonam bu dee géej gi am na il mu dem. la la ilaha bu fekkenteel ne àll bi la. ci tunde yi. tunde yu mag yi kon. xëng nga uh-huh. xam nga xëng nga uh-huh. wala wakaam sa xeer yu ñuul yi uh-huh. sa géej ga fa ñu dëkk déggoo ma de laay laay li Dakaaru dëkk maam lëg daanu mbay gis nga île mm. ba ba ba île de Gorée ñoom ñu dëkk wala nga dem Ndar maam Kumba Bang maam Kumba laay la te lii nii foog nga dew ni borom yi bagage pour mën ko xam waaw ndax man maam Kumba Bang may tëdd fii di nelaw sax di ma yee borom bël bi fii may tëdd fii si sama néeg la ma maam Kumba Bang di yee man. d'accord ok léegi ngeen toog gis nii ñoom ñu ngi wax loo xam ni xamuñu ëllëg mun na leen jural musibo naan senegal du jël coupe tey yàlla indi na fi coupe bi. xam nga yàlla rek mooy buur. Mhm. booba yàlla nas na. coupe bi war a mhm. ñëw Sénégal. Mhm. booba yàlla pare na. jinne yu mag yi. gëm Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne lii du ma ko seetaan faaw coupe bi ñëw. yëkkatil ma micro bi. Uh-huh. faaw coupe bi ñëw xale yi kontaan xale yi bége. Mm-hmm. waaye nag kuy amu fit ba dem sa télé ba ne coupe bi du ñëw Sénégal. Mm-hmm. yàlla weer na la ak say fen. te na yor nga xalima. da nga na yor nga daraja demal nga togg sa xalima sa daraja léegi lu tax ñoom bu actualité jotee rek ñuy profité ku nekk def naan nangam nangam nangam nangam sangam nangam te yow nee nga amal xel ñaar ndax sa nooyi dina amaat dina wàccam déet yàlla wax na ko dañuy ut xam-xam rek di ut xaalis di nax nit ñi di dofloo nit ñi rek léegi su ngeen toogee yéen ci seen i jamono mës nañ naa dégg nga ni boo bëggee loo boo mënee li ngay def ka ngay faj keneen ka ngay faj mooy siiwal mais yow c'est pas l'appel ngay siiwal sa bopp alors ngeen toog léegi ci wàllu rawaan yéen seen waajur yi daan ko def ngeen donn ko di ko daw sax yéen yëf yi di leen wuy si ngeen koy daw mu leen di loo ngeen su ngeen toogee li gis xale yi di ko di ko fowee ci jamono juñ toll nii parce que technologie dafa avancé léegi ca lañ ca lañ a aw ñoom pour nax nit ñi mm-hmm. loolu leen du leen jaaxal dañuy waaru mm-hmm. ñun dañuy waaru parce que léegi dañuy faweew rab dañuy ut xam-xam dañuy fawe xam-xam waaye li fi maam yi bàyyi ba tey mu ngi fi. te ku ko ci bawul. ku ko si bàyyiwul yàqu wala nga sànk wala nga dof. te doo jóg si gàcce xam dara doo jóg si gàcce te booy dee doo doo tàggoo de déggu gaaw ngay dee. jërëjëf mbokk yi numéro yi mooy affiché noonu ci baa bas d'écran bi ñu naan ko soxna bàyyi Mbaye Seydi alors ci gàttal eh, bala ñu ñëw ci combat bi tëj émission bi ci la ñuy tëjee émission bi entre Gouye Gui rek Reug eh, lan nga ñu mën a wax ci Sadio Mané. ci li muy def ci wàllu social ak Idrissa Gana Gueye bi nga xam ni sa mbokk la. xam nga Sadio Mané moom damay. ñaanal def na lu yéeme Cameroun dama koy ñaanal yàlla na ko yàlla lafal cat. Mm-hmm. yàlla na am gudd fan. ak mbooloo mi <coughs> sport bi. ñi di mm-hmm. sport ñëpp yàlla dimbali leen. Mm-hmm. wéral cër yi ak tànka yi. ndax. Euh, lu muy def yëpp yëg nga ko ci social. di jàppale doomu aadama yi. ku jaaxle mu faj. ku feebar mu dimbali. du dem boîte du tatoué du takku jaaro. déedéet yal na ko yàlla la te gisaluwul nag si li muy def. la ilaha illallah xale bu dal la. oh Sadio Mané na ko yàlla jàppale. aywa amiin day li muy def tubaar fakkaal la. ak la mu def Cameroun. ak la mu def Cameroun ak jàkka yi. génn ci hôpital bi ak Bambali. fu tabax hôpitalu deux milliards. lycée yombul oh. yombul de waaye moom da def te yàlla tax. di dimbali xale ak âge mu am. âge bi mu am. subhanallah yal na ko yàlla. amiin yaa rabbal aalamiin yal na ko yàlla dimbali. Uh-huh. na ko yàlla nëbba. ok bi nga gisee mbooloo mi. nee nga toog nga ay jamono ñu dee la wan la mbooloo mu bari mais taxuloon nga génn wax ko. déedéet dama ne ki may toogal. Hmm. sama xarit. Hmm. Assane ku baa ngi ñëw. waaye duma toog si tele bi di ko mbaw. nañu màndu na wax waxkat yi noppi sama benn xarit daf na ma seetal ma laa yéen barki sëy naa li ma am binte loo was ci coupe bi ma ne bu seetkat yi noppee coupe bi ñëw mu ne ma yow say wax dama ko ragal dina ñëw ma ne ko bu sooba yàlla waaye du ma toog si télé bi di ko wax laa ilaha illallah wallahi watu ko Serif Ousseynou Laye laa toog ñaari sama ñaari xarit kii tiijaan la d'accord kii murit d' accord ginnaaw coupe bi ñëw na dans deux jours. Mhm. jour ju mooy ñaari fan. ñu inauguré loo xam ne mosuñu suñu woon xalaat mooy stade boo xam ni macha allah bu mucc ay président Macky Sall yal na yàlla guddal fanam. wallahi xol yëpp sedd nañ. defal nañu loo xam ni. quatre appuis ñu ngi koy gërëm. Sénégal yëpp di ko gërëm lan nga ñu mën a wax ci stade bi nga xam ni da mel ni ku nekk biir Angleterre. xanaa ñu góorgóorlu rek taxalay bañ kaa saboote bañ kaa yàq. waaw surtout. te bàyyi violence yi ñuy def Macky Sall jàmbaar la yal na ko yàlla dimbali may ko jàmm sañu président boobu nag moom la fi yàlla teg te man dama ko bëgg sama xol Macky Sall la li mu taxawoo champion yi demoon. ndeysaan andil ka ndam mu kontaan ku mu jox la mu kontaan ba ngénte ku bi. ndeysaan waaye Macky baax. aywa Macky kaay seet si soxna Bintu waay. Macky mi ah aka baax. jërëjëf aywa euh, la ñuy wax ci ci gàttal la ñu tëj bala ñuy tëj euh, Idrissa Gana Gueye. Idrissa Gana Gueye borom Medina sa xarit bi maam Limaamu Laay laay lay li daal maam Seydi ki bàyyiwu Seydou laay da ka woon da ka da ngay dugal bii bi di ma sédda maa ci am lu leer nañ. moom Gana Gueye. barke bàyyi laay ak Seydi bàyyiwu Seydou laay ka taal moo ko ñaanal moom Gana Gueye mu ngi may dégg. Gana yaa ngi may dégg bu baax gëm nga bàyyi laay gëm maam Seydi ñun kiiru nañu. yàlla na la yàlla lafal cat. ndeysaan. Oh. keroog ba nu koy féete si laayam. Mm-hmm. arwaar jàkki laayam. salaaya ma ne waa lu xew fii ñu ne yow foo ne Medina ngi toj gànn gay la ñuy feetal fii guy Mariama. d'accord ndeysaan jërëjëf mbokk yi kon gànn ak xale yëpp yal na leen yàlla defal jàmm surtout Sadio Niancho yal na ko yàlla defal jàmm wax dëgg yàlla dañ koy mais eh, ginnaaw stade bi ñu ñëwaat ku wax loolu ñëwaat ci làmb eh, guy gi rek rek eh, coow li bari na mm. ñaari fan la ku ne yaa ngi ndamu te ñi ñaa ngi koy coow wër na àdduna loo ñu ciy wax. jàmm rek laa si bëgg mm-hmm. xale yi dal la ma waxoon daaw di ka wax si mbëri laay wax si diggante ñaari côté yi rëg ci ñaari côté yi diggante rëg-rëg ak guy gi ndax uh-huh. tubaar fakaal la Penda Mbaay Samba uh. jur soxna kan mbaay uh. caaree la dëkk kon man dama am cër si caare ndeysaan muy rëg-rëg muy rëg-rëg guy gi sama fans la balaa bàkku damay bëgg ndax balaa bàkku balaa bàkku balaa bàkku ba yarami tàng mu xotti yëre yi sama kara yu boppay danaan say ndax loolu yëfi mbër la ndeysaan te dama di mbër ndëkk bëgg ka guy gi mais am na loo ñu wax nga ni la bàyyi di dem làmb di dawalal boppam dama bëgg uh-huh. xale yi ñu réglé uh-huh. man xale yi rek laay ñaax waxi waxi làmba sax man daaw ma ci wax te bëgguma cee wax dëgg la waaye xale yi laa bëgg ñu réglé rek kun si daan sa mbër nga àndaas ak dal muñ bu ëllëgee soo jiitalee sa mbër yàlla man laa defal jàmm ku perte ren bu déwénee di nga amaat ndam ku perte ren. bu déwénee di nga amaat ndam te ndam li Sénégal la yem. ndam li lépp Sénégal la mbër ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi xale yi yeewu leen ngeen bàyyi violence mais bokkoo ci naan diw mooy daan. bëgguma loolu. du ma ko def dëgg la taxawaayu suñu borom la aywa léegi ci gàttal tuuti taxawaayu rab tamit dafay jur ni ci sa wàllu faj dañ lay gis ni dangay seet ci suuf nee nga tere nañ la petaaw léegi ci biir émission bi ndox ngay defee ak pet ak suuf lan mooy njariñ li ndox laay seete mhm. suuf laay seete. Mhm. wala man a jàng jàkkaarloo yow si sa jëmma gis mm. la ak foo mën a ne. loo ne kar téléphone xam naa li la tax a jóg. laa ilaha illallah. te ne nga ku bañ a xam sa sarax bu ma woo. bu ma woo kay ku fonkul sama sarax. Mm. doo déglu samay wax. Mm. bu ma woo. te bu la woowee lépp lu nekk ci moom nga koy wax ak fu mën a ne. fu mu mën a nekk sa aaja faju mbiram doom dama si yëngu. danañ ci ñëw mais ci diggante seet gi nee nga tomb ak suuf ak ndox ak jëmm ji. bu ma la si seetalee léegi gis la. mais koo xam ni mu ngi lay seetaan munul ñëw ci yow nekku fi. bu toogee ma seetal ka wax ka lu du dañ ci téléphone bi si suuf si wala ndox. laa ilaha illallah. ah. waaw yàllaa ko def. mais lan moo lay téye na la na génn sarax sarax. xanaa sama rabu maam. doon kilifa nag. doon buur. foyewuma aw rab kafewuma aw rab raba ma may. d'accord am na ci benn foofu war nañ ci foofu yooyu duñ tudd tur benn xale boo xam ne yàgg na daanu dem na fu ne nga ne leen kii lu muy jëm fu lu muy dépenser ay ndakaaru. bu mu génn passé bari ñi naa ko dugal fii yoof nga ko sangee mun a nemm ba léegi. ba pare commencé changer tey. tubaar fakkaar la mu nga a teg. te rab lu la la ko doon def waaw waaw. rabaka sonaloon rabaka sàmmoon rabaka sëve waaye rabaka laaj ab xalam mu jox ma ka reetaanam gii de boobu man dama ko ragal man léegi léegi nag ñu ñëw ci beneen fànn ñu daal di tëj émission bi mooy ci njariñu sarax nee nga ku ko xamul bu mu la woo mais li muy faj bari na ci ndëpp gi moo indi faj mi parce que yëf yi bi mu lay dugg ñu ndëpp la ñeent yoon ci la mu indi nag léegi nag ñu ne la nag kaay doon nga ma ci seet waaye kaay foog ngay faj mooy wàllu taxawaayu doom dama koy faj mhm. wàllu doom faj waa lu ëmb bu yàqu dama kay faj. Mhm. ku taxaw dañ koy faj. Mhm. ci taxaw da koy faj. taxaw dañ koy faj. Mhm. ko amee ndigg dama kay faj. d'accord mais non taxawaay bi la ñuy ñëw ba pare jigéen ñu bari taxaw nañ lu ko indi. waaw ñu bëri mënatuñu dugg ci sëy am doom. wala di avorté wala premièrement dañuy dugg rek avorté. ñenn ñi dañu gëm rab ñenn nañu gëmuñu rab. ñenn ñi dañu gëm rab. ñenn ñi gëmuñu rab. te ki ko gëmul lay gën a sànq. ki ko gëmul rek lay gën a sànq. du bàyyi de. rab ak a dëgër bopp <laughs> ak bopp ak am doole. da lay téye nga bañ a am doom. doo ko am de. da lay téye nga bañ a sëy. boo boo boo fonkee li mu bëgg rek fonkab saraxam rek boo fonkeb saraxam rek mu libéré la may la li mu bëgg. wàllum njurum doom day mun naa waat ni moo ci mën maa la ko wax wàllum njurum doom soxna Binta ci mën li ñuy wax lu leer la. li mu yor ci ay turandoo kenn xamul nu mu toll parce que loole nee nga il faut nga xam sirri bi maanaam sekkaraw rab bi. yàlla day. Ah. mooy maye. Ah, ah. jinne koy dëggal. te yàllaa ma ko may. laa ilaha illallah. aw raba ka dëggal rabbu bu mag rabu cosaan. sama rabu maama ma may. borom Sangomar borom géej gi borom il de Gorée. d' accord et léegi balaa ñuy tëj. ci benn côté ci wàllu rab bi ba tey eh, mooy tere nit tukki wala muy toog. munta fexe ba am liggéey luñ ko dig du sotti buñ ko digoon dara sax nit denc ko bu ñëwee mu ne ko xaaral ba suba waaw aw rabam moo koy téye parce que fonkul sarax ba mu war a jox rab wax am na ñoo xam ni ne faalewuñu sarax ah. ñu sarax te sarax ak ay fanq sarax di nga taxawal sax dee sax nga saraxe malaaka ma dimbali la yàlla puusaat ko ay oh, junni puusaat ko la sarax ak am importance si nit sarax ak a jara fonk nit dina la fexel mhm. sarax ba fel nit dina la liggéey ñu ne la saraxel nangam sarax ba fel ko illah nit dina la jógal nit man ngaa yóotu dara ñu ne la sarax taamoo ko baare defal sarax boobu d'accord léegi euh, am na ñoo xam ne dañuy mer rek foo leen fekk dañuy mer wala couple yoo xam ne dañuy namante bu ñuy guddi gi di rayante loolu rab kay def wala faru rab faru rab mooy yàqa loolu. kon daal il faut ñu ñi gëm ni. rab am na dafa am. dafa am dañ judd fekk ka fi dafa am maam yi la sa maam ya la woon. d' accord euh, ñu résumé tuuti tëj euh, ci wàllu ngóora da koy faj cest di dire duñu duñ ci dugg euh, ñu ñëw ci benn fànn boo xam ne jigéen ñi dañ ko soxla mooy wàllu ngóora góor gi nga xam ne day gaaw a jot boppam bagage yaa ngi fi tege wax na ci waxati ci ci yenn télévision yi ñi nga xam ni seen man yu dafa oyof bàyyi sëy di da koy faj. soxna Bintu ñi nga xam ni dañu toog ba dem perte seen forme ci wàllu taay jigéen ñi nga xam ne dañu perte seen forme am na ci ay produit yoo xam ni da koy liggéey soit sa ween wala sa ginnaaw nga baal ma ci wax ji am forme bu normal euh, dana ci liggéey euh, maanaam jigéen ñoo xam ne dañuy soxla produit yoo xam ne te nii wàllu forme ak wàllu ween ak sa taille normal boo xam ni wala say kanam di am yenn kii produit naturel la koy liggéeyam yooyu c'est autre chose am na cabinet boo xam ni soxna Bintu laay am na ko loolu euh, ban onos bi ñu doon wax la rek ci wàllu kaso wala ñu ñëwaat ci làmb ji tëj émission bi wàllu kaso. wàllu kaso yàlla may na ma si de. parce que tey nee nga am na ci nombo yoo xam ne yaa ngi koy liggéey boo ko takkee doo dugg kaso. mais foog nga jubal. foog nga jubal foog nga tegu si aw yoon boo si duggaatee fa demati ah. parce que am na ñu dëng de waaw di def ah. tuux dina ñëw ne nomba gi laa soxla. déet loolu mënu aar nag. da ngay tegu rek si aw yoon te jubal boo fa demaatee bu fa génnee bu fa ñaan yàlla tee duggati. mais dañuy dégg ni des fois da ngay def ay fas di fas dañ gis nga yor ay buum noir xonq na di fas rek léeg-léeg nit ñëw sax am problème mu dara nga jox ko ko na ko takkal loolu lan la fas yooyu ngay fas di jat loolu samay maama ma ko jagleel pour wàllu ëmb wàllu sëy wàllu mhm. tubaar fakkaal la boppa uh-huh. boppa tànka ndigga lépp a ngi fi lépp a ngi fi lu du ci nag bi xaju ci cin li donc soxna Bintu Baye Seydina Limaamu Laay ñu wax lépp li nekk ci moom dafa bari waaye yow mi am problème ak problème boo mënti am boo ko seetsee yàlla faj sa aajo waaye yaa ngi àdduwaat ci làmb ci promoteur bi dajala xaalisam dëgg combat am nga ñëw ni diw mooy daan waxoon nga ko mm-hmm. promoteur bi préparé mais promoteur yi tamit dafa mel ni dañuy war a di génn sarax parce que léeg-léeg promoteur tëgg échec. waaw yooyu dañu fonkul sarax yi dañu fonkul sarax. Hmm. ñoom ci seeni boppa dañu war di joxe ay sarax di génn. sarax balaa ngay taxawal combat. ngaa taxawal combat te ñii di wax si kii mooy daan këli mooy daan. nañ bàyyi nañ ko bàyyi nañ ko invité. Ah, ñëpp dem nañu vaar. nañ bàyyi loolu ah, ñaan àndul ak lii. nañu noppi mandu ah, am na foo xam ne ruxa ba yàlla nekk mënoo faa dugg nag ne lii moo am. Oh. manoo ka saw fit rek ak say fen rek nga yor boo paree yàlla weer la doo rusa daagoo génn. loo jaale alaaji ma jooju si sa maam. Ah, sa dama koy na yàlla yokki leeram. waaw yàlla taas ñu si bo barkeem. Mm-hmm. Euh, taalibe maam alaaji Malick boobu. waaw pour ma leeral kat appui ñi xamul alaaji ma jooju si. mooy ci paa bi Modou mbay jëloon. waaw ci Bantamba. fekkoon ko Grand Médine du ñu tudd beneen fànn wi. paa bi Modou Mbaye fekkoon Bantamba jëloon ko mooy alaaji ma joojo si bi taxawaloon koskaas ndeysaan baayu Bekaay Mbaye moo moo wàññeeku euh, làqu na depuis barki mu denc nañ ko fii ci armeelu Yoof ndeysaan ku bëggoon Serigne Babacar Sy waay bëggoon Tiwaawan Tiwaawan ni Mbaye doomam ngaala mi ñuy jooy te noppeeku daawul tardé appel daawu ko tardé te daawul tardé gàmbu ndeysaan xam nga fa ma mujjee daje euh, ngaala mhm. xabrub sëriñ Babacar Si ma Abdou Aziz ndeysaan mu génn daal na teg jàkkaarloo man ak taar ba ñuulaay bu rafet ba te fekk ta moom moo juróon ngaala fekki na ko moom moo fekki tey doomam yal na yàlla taas ñu si barkeem amiin yaa rabbal alamin amiin yaa rabbal na yàlla yokki leeram amiin barkeb maam Abdou amiin barkeb sëriñ Babacar wasilaam jërëjëf looy ñaanal sa mbokku taalibe yi dañ teg émission bi ñaanal yàlla réew mi yàlla def ci jàmm euh, réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm amiin yaa rabbal aalamiin yàlla nañu yàlla sàmm amiin yàlla nañu yàlla nëbb amiin yàlla nañu yàlla musal si seytaane ak cat ak làmmañ mu si balaa déegu gaaw a déegu ñaaw wallaahi baykat yi yàlla naatal li wax nañ seet ci yàlla géej gi yàlla naatal andi jën yu mag yi mm. jën yu mag yi waay ak yabay bu di jëbi. dë jërëjëf euh, xam na géej gàllaaju mool am na ko de am na yu bari yoo xam ne ay jaaro <coughs> bari na kii lu mu xam bagage yi bari na euh, numéro yi mooy affiché ci bas d'écran bi si ngeen ko woy di ngeen ko jot wala ngeen jot secrétaire am Assane donc di leen jox dig daje beneen yoon incha allah soxna Bintu Baye Seydina Limamou Laye di ñaan yàlla appel bi ñu def ko ci jàmm jërë ngeen jëf.